idée yu original kanam bu reetaanlu di partager ay vidéo ci TikTok ak Instagram tax tey mu nekk benn véritable phénomène en 2021 ginnaaw bu mu amee ay millions de followers Khaby Lame nekk benn jeune sénégalais bu nekk actuellement en Italie plus de vingt ans mi ngi juddu le 9 mars 2000 bi muy am benn at la jóge Sénégal nekk ci Italie moom ak ay parents wam Habilam jeune sénégalais bi italien lay wax waaye mënul làkk anglais mënu ko bind dafay pratiquer sport ci bi muy gën nekk ndaw rawatina bi mu nekkee lycée li mu gënoon di pratiquer mu di football ak basketball taxoon mu bokk ci championnat basketball bu niveau junior ginnaaw bu muy liggéey ci benn entreprise comme ni ko àdduna yépp yëgee mu di jafe-jafe bu ñu dund ci début 2020 jàpp 2021 jàngoro bii di coronavirus lëmbe àdduna bokk ci li nga xam ne handicapé na ko ci liggéeyam mu dal di confiné wu arrêté liggéeyam tëju ci biir këram confinement bi doon ko jural ay jafe-jafe muy ennuyé wu xelam daj li nga xam ne moom moo di def humour ngir mën a jóge ci jafe-jafe yi mu doon dund en espace de quelques mois Abilam am na un million d'abonnés sur TikTok ay followers yu koy suivre objectif bi mu jëloon mooy di reetaanloo nit ñi ci façon bu simple moom Abilam ay vidéo boo koy seetaan du exprimer wu gestuellement lay def pour indi benn simplicité di reprendre yenn vidéo yi nga xam ne tiktokers yi ñu ngi koy def ngir wan leen ne leen li ngeen di def dafa xaw a jafe mais daf koy réduire de façon très simple un incroyable parcours et se faire connaître partout dans le monde entier Habilam dafa prêter attention nit ñi ci vidéo yi nga xam ne moom lay partager sur TikTok et Instagram rawatina ki nga xam ne moom moo di Kylian Mbappé 12 avril 2021 ci lañ ko tàmbali du suivre carrément avec 6 millions d'abonnés sur TikTok trois jours après 23 millions et très rapidement mu am 72 millions de followers sur TikTok et 21 millions sur Instagram li tax tey mu nekk sur top 5 mondial du réseau nekk ci ginnaaw ki nga xam ne moom moo di Charli D'Amelio D'Amelio nekk ci ginnaaw ki nga xam ne moom moo di Charlie D'Amelio mi am 117 millions d'abonnés grâce contenu yi nga xam ne moom lay def mu di fecc Habila moo nekk tey benn roi ci TikTok mi ngi exploser record yi ak partage yi mu nekk itam nit bi ñu ëpp lu ñuy seetaan ci TikTok nekk premier influenceur italien quant à ses am na ci yu bari dafay dépasser plus de 200 millions de vues tey jeune humoriste boobu di Haby Lame di doomu Sénégal dafa dafa xaar ci liggéeyam dem fu gën a sori grâce à benn interview bi nga xam ne amal na ko ngir gën ci expliquer li nga xam ne moom moo di viwam carrière am fan la bëgg a dem ak lan la ñu war a xaar ci moom mi ngi xalaat lancer yeneen plateforme surtout YouTube ngir nit ñi gën di ko seetaan message bi muy jàllale nit ñi di ko gën di partager mën na dund actuellement sans métier bi nga xam ne moom la doon def avant muy dugg ci humour bi parce que actuellement mi ngi ciy gagné xaalis bu bari bu ñu sukkandikoo ci budget bu Habilam mën nañu wax ne moom moo nekk ki plateforme bii di TikTok di gën di fay bu ñu xoolee ci bilan bi nga xam ne fësal nañu ko. ci weeru avril jàpp mars 2021 19 777 euros lañ ko fay bu ñu xayma xaalis bi dafay toll ci 12 millions 855 mille 50 francs te bu ñu xoolee loolu ci ay vidéom yoo xam ne def na ko ci boobu les durs te mu toll ci 2 milliards de vues moom Habilam dafay collaborer aussi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay partenaire am ak yenn publicité yi nga xam ne mi ngi koy def mu di ay marques yu ñu xam mu ci boobu boobule xaalis fortune am tey buñ ko estimé dafay toll ci un million à deux million de dollars. actuellement le jeune sénégalais mu ngi gën di partager. viwam ak ay célèbre yu nekk ci àdduna wërngël këpp di def ak ñoom ak ay vidéo mën nañu wax ne lii moo nekk ndoorteelu succès bu xaabilaam yoo xam ne ñetti mbir da koy firndeel benn bi saa bu ñu xëyee di gis ay vidéom di gën di yokk nit ñi di ko gën di bëgg vues yi gën di yokk ñu koy gën di partagé ñaareel bi mooy xaabilaam dafay gë exploité li nga xam ne moom moo di nombre vidéo yi nekk ci TikTok yi nga xam ne moom la war a reprendre yépp maanaam des vidéos qui existent sur le web ñetteel bi firndeel ni que mi ngi soog a kam tàmbali li nga xam ne moom di carrière am daf ci gën di am tur saa su nekk nit ñi di ko gën di bëgg waaye ay vidéom nit ñi di ko gën di seetaan dernièrement le jeune sénégalais Habila mi ngi préparé benn voyage ngir dem États-Unis amal fa benn vidéo bu mu war a tourner avec le grand Will Smith ginnaaw mënul wax anglais mënu ko bind actuellement mi ngi jéem a débrouillé wu ngir def kem kàttanam di jàng anglais ngir mën ci évoluer ndax ay rêvam mën a sotti ginnaaw bi mu bëggee nekk acteur bu mag ci cinéma bi de plus en plus mën nañu wax ne que mën na am avenir bu promettant ginnaaw nit ñi ñi ngi koy gën a jox bopp te à chaque fois ñi ngi koy gën di gis muy ànd ak ay nit yu am doole ci àdduna wérngel këpp tey Khaby Lame nekkul benn utilisateur TikTok boo xam ne dañ koy considérer comme ñeneen ñi ginnaaw moo nekk nit bu ñuy gën di suivre ci TikTok ba tax na dafa am koo xam ne moom moo gérer li nga xam ne moom moo di ay comptam maanaam benn responsable de médias sociaux boo xam ne moom moo gérer li nga xam ne moom moo di compte bu Khaby Lame mu di euh, bi nga xam ne moom mooy occuper compte personnel yu Khaby ci réseaux sociaux yi le soleil brille pour lui Comme tous les hommes amoureux, le jeune Sénégalais avec une belle histoire d'amour Habilam dafa nekk ak benn xale bu jigéen bu ñuy wax Zaira Nutu boo xam ne moom lay affiché wool ci réseaux sociaux yi liy firndeel ne ñoom ñaar mbëggeel gu dëggu la te seen ay photo à chaque fois dañ koy partagé ci li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi d'après li ñu découvrir ci viwu xabilam di doomu Sénégal bi nekk actuellement en Italie benn xale bu góor la boo xam ne mi ngi am ñaar fukki at ak benn bi muy am un an la jóge Sénégal dem Italie foofu la évoluer jàngee fa doon fa liggéey ci benn entreprise bi mu commencé chômer nag ci la dugg ci milieu bi nga xam ne moom moo di ay influenceur actuellement moom Habilam moo nekk ki nga xam ne moom la ñuy ëpp lu ñuy suivre sur TikTok Instagram avec des millions de followers ami internautes de Sunugal 24 c'était tout aujourd'hui ci li nga xam ne moo di li ñu leen indiloon ci doomu Sénégal bi pour ngeen gën ko xam kan mooy Habilam ginnaaw bu mu nekkee actuellement benn nit boo xam ne ñi ngi koy seetaan à travers le monde entier ñi di ko bëgg di ko partager et en même temps mu nekk fierté li nga xam ne moom moo di Sénégal bu leen fàtte abonné activer seen cloche de notification mën a am suñuy vidéo à temps réel am ngeen droit partager li nga xam ne moom moo di seen avis ak ñun à travers les commentaires d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas aussi d'abonner sur Sunugal 24 abonné activer seen cloche de notification mën a am suñuy vidéo à temps réel